bu Dakar amal na remise ay chèques askan bi nga xam ne port bu ndeyaan daf leen a yëkkati mu doon activité bu am solo lool ci bile projet bu ñu sukkandikoo ci directeur général port autonome bu Dakar Mountaga Sy lii dafa doon pàcc bu am solo ngir ñaax askan wi ñu ñëw bokk ci bile projet. yàlla mooy ñu sutura population yi comprendre intérêt projet bi port autonome de Dakar ak état du Sénégal yokku njël gi. ba conciliation yi méngoo ak lii population yi soxloon moo tax ñu nangu ne dañuy accepter projet bi war a mën a jóge foofu projet war a mën a démarrer. lu ëpp ci juróomi junni impacte jot nañ leen a nemmeeku gannaaw ba ñu defee ab recensement ku ci nekk dina jot ab chèque bu méngoog alal bi nga xam ne moom la fa defoon. ñu tollu ci juróomi junni ak 464 personnes ñoo xam ne ñoo nekk impacté di projet de Ndayane mi ngi lalu ci suuf bu toll ni 1200 hectares dem nañu fa ak population yi ñu dox suñu ay tànk. wër suuf si won leen fan la bërëb bi yem ki ci bokk ak ki ci bokkul foofu la bi ñuy xasee ba def loolu ba pare ci la population commencé comprendre parce que ñoom musuñu musuñu am gàllankoor ci njëriñu projet bi ci localité bi. nit ki ajuma ji nag fanweer ak benn victime jot nañ seen chèque port autonome bu Dakar nga xam ne moo yor bile projet génn na ci lu toll ci ñaari milliards ci suñuy koppar. comme nag amoon na jafe-jafe waaye mais nag yàlla def na ci jàmm jàmm ji moo ñu ñëpp d'accord nañ ci fam teg borne ba ne fa la yem ñeneen ñi itam ñëw nañ ñi ma dëkkal ñëpp man fa ma dëkk quartier boobu ñoom ñëpp ñëw nañ signé fukki milliards ak juróom ci suñuy koppar mooy budget bi nga xam ne pour autonome bu Dakar génnee na ko ngir amal programme indemnisation askan yi nga xam ne ñoo féete ci commune bu Diass commune bu Yène commune bu tubaab Dialaw ak commune bu Ndayane